أحمد اللمين بن خديم خير الأنام أحمد الحادي الكريم يقول أحمد اللمين بن خديم خير الأنعام أحمد الحادي الكريم يقول أحمد اللمين بن خديم خير الأنعام أحمد الحادي الكريم حمدا لربي الآل رحمن من جاح بالإسلام والإيمان ثم صلاة على الأدنان من فضله في المرسلين ثبتا wa bi kitaabil asiisi xad ataa waali ali tuxaa wa saxbi wa kulli man xad jaaxa muuminan bi xii asa wa inni alyawma su tawassuli bi suwari alqur'ani waxwa munsili samaytu munawwir albunyaani muallim aljuaali wal umyaan جئتو منور البنيان معلم الجهال والأميان ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi sant yàlla tey julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ñu ngi sant yàlla tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tey gërëm ku tedd ki. tey gërëm ku tedd ki. di yëkkati suñu kàddu. di yëkkati sunu kàddu ci ndigal ak tur sa jëwriñ ci ndigal ak turu sa jëwriñ sëriñ Moustapha mi nga xam ni sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo la nekkal sa njabootuk bopp bi moo la nekkal fa sa njabootuk bopp ga njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ni ñu ko baaxoo defee at mu nekk ni ñu ko baaxoo defee at mu ne nga xam ne jiitu na ca suñuy waajur nga xam ne jiitu na ca suñuy waajur la woon bis bi saa su ma saa ñëw. bis bi saa bu ma ñëw. waa kër gépp ànd ñëw ci yow. waa kër gépp ànd ñëw fi yow. wala ku fi ma sa nekkal Cheikh Moustapha. wala ku fi ma sa nekkal Cheikh Moustapha. tey jii itam boppi kër yëpp yi fa ëpp. tey jii itam mën na ne boppi kër gi yëpp. ñoom ñépp kenn ku nekk ñëw na. ñoom ñëpp kenn ku nekk ñëw na. kër gu nekk ka ko jiite. kër gu nekk ka ko jiite. mbaa ku ca am ngànt itam. mbaa ku ca am ngànt itam. xool nga say rek nga yabal leen. xool nga say rakk nga yebal leen. sëñ Moudou Ablaye ngi nii. sëñ Moudou nii. sëñ moom sëñ Basirou Khoudia. teewal fi sëñ Lamine moom Basirou Khoudia. sëñ Moudou Baara ngi nii. sëñ Moudou Baara nii. di xalifab sëriñ Abdou Lahad Baara. di xalifab sëriñ Abdou Baara. ànd ak sëñ Lahat Baara. ànd sëñ Lahat Baara. sëñ Baara Lahat. sëriñ Baara Lahat. ak ak rakam. ak a ngi nii. di xalifa sëñ Ahmed Baara. sëriñ Xaadim Mustahin a ngi nii. sëriñ Xaadim Mustahin a ngi di xalifa sëriñ eh, Mustahin Baara. di xalifa sëriñ Mustahin Baara. sëriñ eh, Abdou sëriñ sëñ Baara Abdou Karim a ngi nii. mi ngi nii. di xalifa sëriñ Abdou Karim Baara. di xalifa sëriñ Abdou Karim Baara. sëriñ Moodu Baara. sëriñ Moodu Baara. mu sëriñ Abdou Khadim. mu sëriñ ñoom ñëpp. ànd ak i ñoom ñëpp. Cheikh Coro. Cheikh Coro. mu sëriñ euh, Amar Fall Mbacke. mu sëriñ Amar Fall Mbacke. moom it ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp. moom it ànd ak ay rakam yëpp. sëriñ ñu ñëw fekk fi. ñu ñëw fekk fi. sëriñ Cheikh Mbacke. sëriñ Cheikh Mbacke. mu sëriñ Abdou Aziz Baara. mu sëriñ Abdou Aziz Baara. mu ànd ak sëriñ Bassirou Mbacke. mu ànd ak sëriñ Bassirou Mbacke. ñëw teewal sëriñ Abdou Karim. ñëw teewal fi sëriñ Abdou Karim. mi nga xam ne mooy xalifa bu sëriñ Abdou Aziz Baara. mi nga xam ne mooy xalifa bu sëriñ Abdou Aziz Baara. Eh, ànd nañu itam. ànd nañu itam. sëñ Lamp Diop. ak sëriñ Lamp Diop. mu ñëw teewal fi sëñ Moustapha Diop. mu ñëw teewal fi sëñ Moustapha Diop. mu xalifa sëñ ñaan Diop. muy xalifa sëñ ñaan Diop. sëñ Xaadim mu ngi fi mu sëñ Cheikh Sidi Mokhtar. muy sëñ Xaadim mu sëñ Sidi Mokhtar mu ngi fi moom it. ak sëñ Moudou Aïcha. ak sëñ Moudou Aïcha. sëñ Abdou Samad. ak sëñ Abdou Samad. sëñ Abdou Xaadim sëñ Basiru Xujja. ak sëñ Abdou Xaadim moom sëñ Basiru Xujja. ak sëriñ Cheikh Gaye. ak sëriñ Cheikh gay ak ñi fi ànd ak sëriñ Cheikh Ndiaye. ak sëriñ Cheikh Ndiaye. ak ñi ci ànd yëpp macha allah ak ñi ci ànd yëpp tabarakallah. Baye Ahmadou ñu ngi ñëw. kon Baye Ahmadou Mokhtar nee na ñu ngi ñëw. ci sa wet. fi sa wet. di feddali li nga xam ni. di feddali li nga xam ne. moo amoon ci diggante ñaar ñu sell ña. moom la yàlla dogal ci diggante ñaar ñu sell ñooñee. muy Cheikh Mouhamadou Moustapha. muy Cheikh Moustapha. ak Cheikh Mouhamadou Lamine. ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. kenn ku nekk xam ni. kenn ku nekk xam ne. suñu borom moo barkeel. suñu borom moo barkeel fa tabaarakallah. am na loo xam ne day diis ci jenn jëmm. nee na am na loo xam ne day diis ci jenn jëmm. moo tax yàlla def ñaari jëmm rek. waaye moo tax yàlla def leen ñaari jëmm. kenn ku nekk am yanu. kenn ku nekk am yanu. waaye du ñu ñaar. waaye du ñu ñaari jëmm. kenn lañu kenn lañu woon. mu rafetoon lool nag. mu rafetoon lool it. tàmbalee ci sëñ Modou Baara. tàmbalee ca sëñ Modou Baara. ak Cheikh Cheikh sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. ak sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. muy dox ba agsi ci yow. muy dox ba agsi ci yow. dañu des la ci waajur. yow rek lan dese ci wayjur ci ñaari kër yi. ci ñaari kër yi. nga rafetaloon ko lool. nga rafetaloon lool. diggante ak sa diggante ak Cheikh di Mokhtar. sa diggante ak Cheikh Sidi Mokhtar. jox ko sa kilifteef. jox ko sa kilifteef. jox ko taalibe gi. jox ko taalibe gi ak sa lépp. te dara desu ci woon. dara desu ci woon. nga rafetal ko lool. nga rafetal ko lool. mu bàyyi koo fi. mu bàyyi koo fi dellu ca ngërëmal boroomam. li la war ci njaboot gi. li la war ci njaboot gi. nga taxawee ko. nga taxawee ko. matal ko. matal ko. ba mat ba mat sëkk macha allah moo tax tey Cheikh Moustapha Mati Lay ànd ak njaboot gi ànd ak njaboot gi ak taalibe yi ak taalibe yi ak ñëpp ak ñëpp di fabaat lépp di fabaat lépp di ko yeesal di ko yeesal di ko feddali di ko feddali di ko teg sa loxo di la ko jébbal de ko ci sa loxo di sant yàlla bu baax ci yow itam nag. di sant it yàlla bu baax ci yow. ndax li ñuy wut ci kilifa yëpp. ndax li ñuy wut ci kilifa yëpp. mi ngi ci yow. mi ngi ci yow. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom. mu yàggal la fi. may la ak wér. may la ak wér. ba lépp mat. ba lépp mat. ci barke Cheikhul Khadim. barke Cheikhul Khadim. ñu bis bi te ñu ànd ko. moom nag fa mu nekk. moom nag fa mu ne. ma nga fa toog. ma nga fa toog. toogal la ci biir njaboot ga. toogal la fa njaboot ga. di la xoolal. di la xoolal. di la sàmmal. di la sàmmal. tey déglu sa ndigal tey déglu sa ndigal. moo njaboot gi yëpp. macha allah moo ne moo njaboot gi yëpp. nekkuñ ci leneen. nekkuñ ci leneen. lu dul loolu. lu dul loolu rek. fas yéene ndono li nga xam ne. fas yéene. ndono lii nga xam ndono lii nga xam ne. dafa tege ci loxoom tey. dafa tege ci loxoom. mu fas ko yéene koo sàmm. mu fas ko yéene sàmm. fas ko yéene dundal. fas ko yéene dundal. ba dara du ci manqué. ba dara du ci manqué macha allah. bëgg a fay bor rek. ngir bëgg a fay bor rek. na nga taxawoon ci sa suñu. ba nga taxawoon ci sa mag yu baax ya. sa mag yu baax ya muy sant itam nag. muy sant it. njaboot gi. njaboot gi. ci sa kanam. ci sa kanam. tey sàkku. tey sàkku. nga ñaanal leen. nga ñaanal leen. ñoom ñëpp. ndax lépp lu mu bëgg ci ñoom. ndax lépp lu mu bëgg ci ñoom. mbaa mu santaane ko. mbaa mu santaane ko. mbaa mu woote ko. mbaa mu woote ko. fu ci waay nekk. fu ci waay man di ne. lu mu sori sori. lu mu sori sori. mu nekk nekk ci ittee. lu mu nekk nekk ci ittee. dana ko bàyyi. dana ko bàyyi. ñëw ñëw. ànd ak moom ca moom ca loola. loolu rek nag mooy am solo. nee na loolu rek mooy li am solo. ndax leneen nekku fi. ndax leneen niwu fi. lu dul lii rek. ñoom na xam nañ ko. ñoom na xam nañ ko. ñu ngi koy dundal. ñu ngi koy dundal. kon mi ngi sàkk nga ko. kon ngi sàkk ci yow nag nga ñaanal leen. ñaanal njaboot gi. ñaanal ko ñaanal njaboot yëpp ndax euh, kuñ ne jëmmi jëmi Cheikh Mouhamadou leen Bara. ndax kuñ ne yooyu jëmi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. jëwriñam jëwriñam. du lu oyof. du oyof woyof. diis na diis na. waaye nag waaye nag. ku ngeen yan. ku ngeen yan yéen. da ngeen ko téeñal da ngeen ñuy sàkku rek. ñuy sàkku rek. nga gën koo ñaanal nga gën koo ñaanal. ndax moom it kilifa la mu yàgg fi loolu tëwér ndax moom kilifa la goo xam ne. bu neex a àndal la bu neex a àndal la. saa su xëyee. saa su xëyee. jamono bu nekk. jamono bu ne. mi ngi wàcce boppam. mi ngi wàcce boppam. mi ngi waxtaan. mi ngi waxtaan. mi ngi diisoo. mi ngi diisoo. mi ngi laaj ay xalaat te loolu su ko neexoon du ko ci fekk. te loolu bu ko sooboon du ko ci fekk. léeg-léeg muy wax sax. léeg mu wax sax. naan dem na. naan seen borom dem na. ñun ñi fi des ko bokk. fi ne ko bokk. loolu ak mbaax rek la. loolu kilifteef waaye kilifteef moom. kenn du ko bokk kenn du ko bokk moo moom. moo moom moo ko moom boppam. sa loxo la nekk lépp it mi sa loxo yow. kon nag ñu ngi fàttaliwaat lépp. tey tey jéggalu tey jéggaluwaat tey ziar ci bis bu sell tey ziar ci bis bu tedd bii nag muy bis boo xam ne kenn ku nekk xam na ni mu toll mooy bis bi gën ci bis sëñ Tuubaa yi gënal sëñ Tuubaa ci bisam tam bind ko tam bind ko wax ko wax ko ñaan ko suñu boroom muy bis bi mu ñu bisee muy bis bi mu ñu nag ci boroomam ñu sant ci yàlla bu baax ñu sant bu baax ñaan ci yàlla itam ñaan ci yàlla bu baax lépp loo xam ne lépp loo xam ne lu ñuy ragal la suñu boroom dàqal na ko ci darajey boroom bis bi ñu ngi siyaar itam ñu ngi siyaar it njabootu Moustapha gi yëpp njabootu Cheikh Moustapha gi si gannaaw yëpp gi yëpp suñu xasee ñëw ci yow buñu xasee yegg si ci yow wax ak rek wax na ñoom ñëpp mel gis nañ ñëpp wax na ñoom ñëpp ñoo ngi jéggalu itam nag ñu ngi jéggalu it nag ndax sëñ Moustapha dafay wax saa su ne ndax sëñ Moustapha mi day wax saa su ne su ñëwee ba ci sa kanam su ñëwee ba ci sa kanam amatuñ fi kàddu amatuñ fi kàddu a a ñëw rek ñu nga digal ñu ñu jëfe ji ko ñu dem jëfe ji nga ñaanal ñu nu ne amiin ñu ab Cheikh Moustapha ci turu bi. Cheikh Moustapha Matilé ci turu sëñ Ahmadul Mokhtar mii. ñu ngi lay nuyu. sëñ Ousmane Mbacke nee na ñu ngi lay nuyu. di nuyu bokk yi ngay àndal yëpp. di nuyu yi nga àndal fas yéene jottali canti sëriñ bi rek. di fas yéene jottali canti sëriñ bi rek. di jégalu it ci lu jiitu. di jégalu it ci lu jiitu. wàññi nañ ci benn bu fekkee yóbbante bi wàññi nañ ci benn araf wala ñu yokk ci nu koy jéggulu di xamal sëriñ bi ak bokk yëpp di xamal di la xamal yaag bokk yëpp. ak bokki taalibe yëpp. ak bokki taalibe yëpp. ne sëriñ bi bég na ci yéen lool. ne sëriñ bi bég na ci yéen lool. macha mu ànd ak cant yàlla sunu borom. mbégte mu ànd ak cant yàlla sunu boroom euh, jaar ci sëriñ bu mag bi nga xam ne moo waral jaar ci sëriñ bu mag bi Seyxunal Xadim mi nga xam ne lii lépp moo ma. ak ay waajuram. ak kilifa yi yi mu wuutu ci jotaay bi. boole cant yooyu yëpp nag. mu ngi boole cant yooyu yëpp. di ko ko sant di ko sant njaboot gi. di la ko sant di ko sant njaboot gi. ndax seen teewaay bii tey. ndax seen teewaay bii tey. njëkkul tey. njëkkul tey. yàgg naa am lool. bi mu ñëwee ci say loxo. bi mu yegsee ci say loxo yit nga ànd koog say bokk. nga ànd koog bokk yëpp. dafa yokk waaye dara wàññi gis nañ ne dafay yokk waaye dara wàññi ko ca. loolu it li ko waral mooy mbir sëñ bi mooy lii. loolu it li ko waral mooy mbirum sëñ bee mel noonu day yokk rek. waaye nag li mat li tax ñi jiitu mat sant. li tax nag ñi jiitu mat a sant it nag. gannaaw bi yàlla borom dogalee lii jaarale ko ci ñoom. ñu xam nangu nangu yàlla. ñu xam nangu dogal bi yàlla. di ko dundal di ko dundal. lépp di ay ay yiw ak i njariñ. lépp di ay yiw ak i njariñ. ñu xam ko. ñu xam ko. tàggat ci. tàggat nu ci ñoom. ba tey jii ngeen doxee ba tey ñu di ko doxalee nii tey. mu mu mu yokk daan dem. rafetaay wa di gën a yokk rek. loolu sant sant ñeel na nu war nee na cant moo ci war bu baax ñu sant leen ko sant ko yàlla bu baax a baax. yéen nag. nee na yéen nag. sëñ bi nee li leen war lépp yéen a ci. sëriñ bi nee na li leen war lépp yéen a ngi ci. ci diggante ak moom. ci rafetal ak topp ak lépp lu rafet. moo ci. nee na loola kon sant dong nga fi des moo ci war. donte def lu la war war na ko ne. donte def lu la war sax war na ko ne. waaye nag seere ci kanamu àdduna. waaye nag seere ci kanam àdduna. rawatina ci yoonu mur. rawatina ci kanam yoonu mur yëpp. waaye rawatina ci eh, bokk gi waaye rawatina ci bokk gi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba. ne eh, la fi doon démb rek moo fi tey. la doonoon ci diggante ñaari kër yi démb moo fi nekkaat tey jii rek. mat a biral loola lu mat a biral la. kon nag euh, xam koo waxee na mu ko woon. nee na wóor na ko ne yóbbante ni mu ko waxee moom munu ko naa waxee noona. waaye na ngeen xam ne cant gu gu mu tibbee ci xolam gu dëggu ci. waaye na ngeen seere ne cant gu kawe gu mat gu mu tibbee ci xolom moom la euh, seere jëme ci moom la seere jëme ko ci yéen waa Kër Cheikh moom la ñu baara. ndax ñi ngeen ñëwee. nii. sëñ jëmmi sëñ Baara rek la. jëmmi sëñ Baara rek moo teew fii ci kanam Cheikh Moustapha al Karim. ñooñu ñëpp sëñ Moustapha rek doyoon ci. te nee na sëñ Moustapha rek sax bu ñëwoon woon mooy ñëpp mooy ñëpp. te na ngeen nekkee ak moom it ump ko. nee na noonu sëñ Cheikh waxe léegi ngeen nekkee ni ak moom topp ni ci gannaawam dara ump ko ci. waaye ni ngeen àndandoo ak moom ñëw fii. ni ngeen àndandoo ak moom it ñëw fii topp ci gannaawam ñëw fii. dana xam ni loolu day seereel adduna jëpp rek ne li ci biir mooy li ci biti ñaan rek moo ci topp. kon ñaan dong moo ci topp. yàlla musal ñu ci seytaane. suñu borom dollee musal njaboot gi ci seytaane ak cet. te lépp loo xam ne mooy tax lii gën a dëgër. te lépp loo xam ne mooy tax ànd bii gën a dëgër. gën a bari njariñ ci ci askan wi. gën a bari njariñ ci askan wi. yàlla defal leen ko ci. suñu borom defal leen ko ci. yàlla it fay leen ci yiw yu kawe suñu njort. yàlla suñu borom it fay leen ci yiw yu kawe njort. jotaay bi it yàlla yàgg am lool macha allah te gën a dolli kuy ndam fees ko dell it macha allah. moom nag mi ngi leen di ñaanal. nee na mi ngi leen di ñaan Cheikh Ahmadou Mokhtar nee na mi ngi leen di ñaanal de. mu mel ne Cheikh Moustapha mooy te it na ngeen seere ne buy ñaan day mel Cheikh Moustapha mooy ñaan. waaye nu it nu ngi sàkk ay ñaan. jógee nag ci seex moom leen baara jëm si ci moom mii Cheikh Moustapha. ndax it nee na loola luñ yaakaar lu yàlla luñ sapp la. nee na noonu yi lañ koy kon yéen yéen ñu sàkku seen ñaan bu baax ci jëmmam ji mu yàgg fi lool te wér te yàlla dolli li koy sutura dolli ko ndam ci toolu sëñ Touba bi toolu Cheikh Moussa bi toolu Cheikh Mouhamadou Bara bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah xaala Cheikh Mamadou Lamine Bara ya rabbana inal wara tadarrahu li awliyaika maan li yasun ilayka ya rabbal wara ya rabbana ya rabbana ya rabbana fakun lana wajih lana lutfan wa amnan ya aad ya man taala lam yakun kuf'an aad lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatu qarra wa inni ahmadu للمصطفى وجدت مالي خادا نفعا بلا مقدرة فانخادا للمصطفى وجدت ما قد سرفا لخيرنا إبليس وحوا صرفا